point boo xam ne aussi euh, mu ngi nekk actualité depuis <laughs> depuis début semaine bi <laughs> muy le cas euh, Jacob Jackson le jeune sénégal attaquant sénégalais de Chelsea. Mm. Nicolas Jackson Nicolas Jackson autant pour moi pourquoi j'arrête pas de dire Jacob Jackson. Nicolas ouais. Nicolas Jackson. <laughs> Euh, le jeune attaquant de Chelsea boo xam ne. prestation bu mujj bi demi-finale euh, FA Cup bi ba nee nañu en tout cas prestation euh, dafa doy waar bëri na critique boobu ba léegi d'un côté ñu ngi koy critiquer mais de l'autre aussi il a des soutiens euh, Cheikh Tidiane sa appréciation qu'est-ce qui ne va pas avec ce jeune-là waaw il a des soutiens comme ni nga ko xamee pas des moindres tey bu fekkee da nga am soutien ce coach je pense que ni ci a largement le temps nga mën a def benn introspection nga naan lu waral tey man à chaque fois mu may titulariser wala à chaque fois mu may jox benn temps de jeu boo xamante ne nii c'est un temps de jeu conséquent Nicolas Jackson pour man. Euh, je pense c' une question d' adaptation parce que aussi bu leen fàtte ni dafa jóge ci li nga xamante ni moom mooy la Liga mu nekk un championnat boo xamante ni nii par rapport ak euh, Premier League championnat boobu moom moo gën a xaw a yomb. Mm. tey mu ngi à 13 bi c' est que les gens oublient mu ngi à 13 buts. Euh, ba muy nekk également Villarreal 13 buts la dugaloon ba koy ba koy ba ci soxla certes dafa defoon une deuxième partie de saison boo xamante ni c' était Chelsea bëgg ko récupérer ko tout en changeant nag amoon na profil boo xamante ne nii ñu ngi ko doon xaaree comme ñu Didier Drogba meloon ci Chelsea. mu mu def euh, genre parcours boobu Chelsea mais gis nañ ni ah mais profil bokkul gis nañ ni gis nañ <laughs> ni gis nañ ni gis nañ ni Didier Drogba sax il a soutenu. waaye gis nañ ni il a a il la tête et arrête n'arrête jamais de travailler dur ça paiera loolu la ko effectivement damay damay damay damay ñëw ci ci ci li Pape Malick bi wax mais mooy surtout pense que ni profil yu bokkul xam nga euh, club ci nekk dafa am li nga xamante ni ñoom la ñu defee seen ay processus de recrutement mm. te tey boo xoolee Chelsea dañuy am ay attaquants yoo xamante ni ñoom la ñuy ciblé souvent même bu fekkee ni sax mook Didier Drogba profil yi xaw na xaw na différencier un peu euh, parce que y a yoo xamante ni ñoom gis nañ ko ci ci ci Jackson mm. moo tax ñu porté woon ci leur choix mais quoi qu'on puisse dire, c'est une saison catastrophique bi nga xamante ne nii Jackson mu ngi koy def euh, Chelsea. Mm. malgré confiance bi nga xamante ne nii Pochettino à chaque fois mu ngi koy euh, nga demi-finale FA Cup contre Manchester euh, City mais bi mujj contre Arsenal moom moo gën extraordinaire da ngay gis il est seul devant le but mais il n'arrive pas à je pense que nekkoon ak naar bi am nañu lu leen metti mais mais Kajoor gis nga tamit il faut ñu am un peu de patience il faut ñu am un peu de patience parce que tamit nga attaquant xaar ci moom c'est vrai mais quand même aussi mën na am benn registre boo xamante ni souvent dina ko dimbali équipe bi certes il marque pas beaucoup certes il rate beaucoup d'occasions mais quand même na nga ko jox temps bu war ñu xool comme ren la fa ñëw di siy déwén ndax dañuy xaar ci moom dinañ ko gis ci ci ci ci jaxas malgré nag vraiment. Euh, lu muy wane moom ça donne pas envie